bu tefes gi Samba Laobé moo wane ginnaaw féete droite karbala laa ngeen jàkkaar lool Galbara écrit tefes gi te waaw ca Pikine la karbala bu Pikine Samba be géeje way a ah way karbala ak Samba Laobé lu ñuy defante Garba laa mbërum Ngari mi ngay damantay baram eh Sambalaw bi door na xeex jàppante Sambalaw bi fete na suuf jàppante ba tar na de ngay ñamante ca suuf dóor bëtt na ko dalay daan moytul Karbala moyul waaye Karbala Karbala mbaa ngay def wóor Karbala dañ laa jàpp Samba Laobé ngi wër bëree de Karbala Samba Laobé ngi wër bëree yaa ngi ci kaw di dóor gis nga li ma lay wax dina la caxabal eh am nga sens Karbala da ngaa rëcc de Samba Laobé bëree lay wër de te Karbala xeex lay wër.

takoy daan wala lu mu ko bëgg a def eh xëcc mu ñëw combat ba ngay bëgg a metti de ah way condition physique day commencé génn de ah way léegi fi mu ne nii Pape Faye ku gën a liggéey condition physique bu doy rek combat bi da lay favoriser léegi bëre daa metti bi daa diis da buux mu génn bañ na loola Samba Laobé moom ci suuf rek la féete Samba moom ci suuf rek la féete Karbala loolu nga sa lool da daanu a ah woy Samba Laobé wër wër bëre bi Samba Laobé wër bëre bi yaa daan yaa wër bëre bi Samba Laobé yaa ko gis yaa daan école de Balla Gaye amaan na victoire eh mbërum mbës ma xale baa ngoog moo wër bëre bi naanal toogal fa jëlal ma Samba Laobé kaay Samba waaw defal bëre waaw bëre wax na dëgg bëre xel la bëre xel la boppay bëre ah way wax nga dëgg waay Samba Laobé yay bëre na lu rëy na lu rëy kaay rek yow kaay kaay kaay kaay